siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu école ba pare tey ngay def ci sa bisu jëkkër ji di ok su gay tontoo Tafa. maa ngi gërëm naa trop parce que tamit ñu yombul sant yàlla daal instant yi moom mënu maa wax mais ok su moom wax dëgg yàlla borom baax la borom baax la macha allah. yàlla moo ko fay xolam rek moo tax lii yëpp am. yàlla moo am jëkkër gu yoo xam ne acteur la euh, yombul. Mhm. am jëkkër ju siiw yombul yow nan nga koy dundee ak sa biir kër ndax ku ne euh, acteur xam ne fans dañuy daal di bari fans yi nag y compris góor ak jigéen lan ngay dundee loolu ak moom. waaw début bi moom métti woon na trop parce xamuñu ko woon comprendre luñ ko woon mais bi ñu demee ba xam ne xaw nañu maîtriser affaire yi dañuy xam ne rek artiste bi la moo tax dañuy dem ba dañuy bokk ci milieu bi sax ñu tamit waaw. parce que ñun ñëpp ay nit lañ di ah. jigéen ñi da ngay jàppee ñëpp comme sa bopp rek après nga mën a dem. mais parfois sa borom kër du joué loo xam ne tey euh, da nga ciy rus wala bu paree bu ñëwee nga xool ko wala nga am kersa pour xool ko ci rôle bi nga xam ne joué na ko ba Sénégalais yëpp gis ko. aar la rek parce que boo yàggee ak moom da ngay xam ne li muy def bu ci paree day ñibbisi waat ci kër gi nekkaat beneen nit moom boo ko fekkee ci kër gi sax da nga naan du moom moo doon def lii beneen nit lay doon da ngay xam ne mbub mum soloon la rek après da koy simi teg ko ne Poté Marichou defoon na ci benn euh, séance boo xam ne sénégalais yi xanaa xale yi sax dañ ko ko doon euh, tooñee wala ñëpp jëloon ko muy gundaj gundaj ci googu gannaaw ba mu ko feccalee taalay laa ba ci kër gi loo ko waxuma ko dara parce que fii la ko njëkkee. yow lay gundacal. guddi la lay gundacal wala bëccëg la lay gundacal. xale yi ndaw yi ñoo ko doon bañ mais man moom bañu ma ko parce que xam naa ni fii la dooree doo ko def. si seet daal la ba mu neex. ak yan. ak yeneen ak yeneen rek yëpp si la bokk. jaaxaluma woon benn yoon parce que fii la njëkkee moom day ne ci kër gi di déconné di fecc def yëpp. tey boo amee tey lan li nga koy wax lan lay doon. waa xanaa di ko. ñaax rek mu gën góorgóorlu parce que tamit yàgg na si aar bi dama koy ñaanal nag yàlla fay ko ci aar moom parce que si yàgg lool waaw yàlla na ko yàlla fay ci aar bala mu retraité daal mm-hmm. yow tey bu la ta décidé woon tey takk ñaareel nag góor la nag am na droit ñaar ñett ba ñeent bu décidé woon takk ñetteel sax du moins lan nga mën a wax ci loolu loolu dara daal ñëw déjà boot nga sa ñaareel ñetteel bu ñëwee di ko boot ñeenteel bu ñëwee di ko boot. maa yaayam d'accord lay jaajëfal bu baax. Sindu jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu